coowal suuf bi amoon diggante Babacar Ngom boroom société bii di Sedima ak waa Ndengler bu yàgg ba léegi démb ci alxames bi ca booru 5 heures Babacar Ngom amoon na tase ak taskatu xibaar yi ca biir ndaje moomu nag ki nga xam si ne mooy njiitu Sedima mi ngi xam ne na du deltu ginnaaw ci suuf soosu ndax waa commune bu Sindia ñoo ko jaayoon ci valeur 30 million tolloon ci 250 hectares ci atum 2012. ca jot na cee def lu toll ci un milliard kon nag li mi xam ne mooy waa Ndingler ñëw ànd ak moom ci liggéey boobu lu jëm ci wàllum kaaraange ca tool boobu nag Babacar Ngom mi ngi xam ne ne fukki fan ak juróom yu ne dina fay juróom-ñett ba juróom-ñeenti millions ay gendarme ca geneen wet ga ñi nga xam si ne ñooy waa Ndengler ak waa Jilax am mbetteel mu rëy rëy ci wax jooju ca dinañ ci dem ba jeex jaral na leen sax ñàkk seen bakkan askan wa yeewoo ñaar dëkk yi di Jilax ak Ndengler fas nañ yéene amal ab doxum ñaxtu dimanche bi di ñëw ci loolu sax kuréel gi di forum civil feelu na waa Ndengler ak waa Jilax di wax ne Babacar Ngom nekkul ci dëgg nekkul ci yoon ci ñu ak moom Rafah TV abonné leen bu ngeen fii ci abonné ngeen laal cloche rek mën a abonné su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer